kilifa yëpp ah am na sax ñu bëgg ñu bëgg dugg n'est-ce pas sëñ euh, Baye Modou Seck moom it bëggoon a dugg doomu xalif bi mais gis ngeen ni tamit euh, Pape Abdoulaye moo bëggal Pape Abdoulaye dañuy yóbbaat cene ba yóbbu ñu Sénégal taaral fi nga xamante ne mooy iftaar bismillah looy jàpp na beegan alaa kulli fanin falalaaw fanaw lu ay jàpp na beegan alaa kulli fanin falalaaw fanaw lu ay jàpp na beegan alaa fadalala fano looy jàpp na bee gën ala seydul axirina yonent yàlla Muhammadu jol makka cana baa nga naan seyduna Muhammadu laqad qasama Allahu siyaadata fil azal li ahmada wal ihsaana fil qawli wal amal falilahi ma asda walilahi ma bazal jol makka simaalul yataama wal masaakini lam yazal yonti yàlla Muhammadu Muhammadu rasulullahi lahum indahu zillun warifun wa xayso kuñ la tudde mucc na Muhammadu kula man tasama bi sayyidul aaxirina Mamadul Amin jol dem aljana yonen sopp dem aljana musawaasiyaari dem aljana yonti yàlla Mamadu Muhammadu faaza man kaana waay rasul imaama o yaquudu bi nawan najaati man istaxsa alayhi anama o yalla yàlla mamadou rasulullah rasulullahi jang madina njol makka tasiru riyaun nasri shakhran amama o fahdawuma bayna qawmin wa zillatin nabi andana saba ya khana na betliko yaaw rahmaan xaarul alamina Mamadou Abdallah yaa leen gën sallallahu alayhi wa sallam jol ma kala ka mujizatuna ajazat kullal wara Mamadou Lamine ndeysaan wa fada ilul jallat falay satwaka jol ma ke yaa leen gën دفلني وما قالكم صلى الله عليه وسلم يرنتبي نتغسرا وبسامي لك مولنان واي واي ودبو قتلباك حين أتاك شيء ممدو يا نهي لال نخم والغزلة قد أتت بكتا سجير وتحمين بحماك وكذا الوحوس أنت إليك وسلمت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشك البعير إليك حين رآك كل تدمجنا من الأسى محمد كل متسمى باسم خيار خيار آل مينا انجل صلى الله عليه وسلم Mamadou Abdallah su dee yaa tax ñu sos xiin ak nawet yabal dën te kebere xar guy ray-ray kooko yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi su dee yaa tax ñu góob ca yaa tax ñu deqi gerte gi am xaalis ci say may Mamadou Lamine talwaay mën a ci yàlla bu ko nag yow yow mi yent yàlla muhammad du kon am loola moo tax yaaya yooway def leen ni nu màggal yonent bi a seydana rasulallaahi inni la muftaxirun da ñooy si géwal ilay way waa kër maam Gusaan Mamadou Lamine inni la muftaxirun da ñooy sa géwal ilay way yow sayduna muhammad yeg naa ni waha inni taalaytu bi arar jooli maxluuku bëgg yonen bëgg naa la ndeysaan محمد صلى الله تعالى عليه وسلم جل ما كبر ابن المحيم نينا على فقبلوا مني نصيحة مرشد يسيخ إلى إرشادها مستوى كل مقتد بر ابن المحيم نينا إذا شئتم صلى الله عليه وسلم أن تغرضوا مستوى فوضى في غد كن كيدروا كل سخل الله محمد ينت الله محمد صلى الله عليه وسلم برند المحيم نينا فذلك منحا للنجاة وما خسول ويجاب نبيك وغن على كل فقير فضل الله انت بجرنا وي صلى الله عليه وسلم بذكر رسول الله عزم واعتلي محمد الأمين جل مكة وقلبي إليه بسبابة يستلي جل مكة يا لنكن محمد رسول الله وليس سواه مطلبي ومعملي محمد الأمين سيدنا محمد دليل الورى والليل بسبق ينجلي محمد الأمين سفيعهم والنار بالنور تحمد كل ما سوي محمد عبد الله يا لنجن صلى الله عليه وسلم كل الخلود تميلا ينتهي الأمد عليك الله يا وما بهذا زاهد ودليل أما دليل إذا ذكرت محمدا صلى الله عليه وسلم فترى الدموع العارفين تزيل صلى عليك الله يا علم الهدى محمد الأمين ما هنّ مستخوى سار جميل دفلني جيون انتبي صلى الله عليه وسلم صلى عليك الله ويا علم الهدى ما لاح بدر في سماء الدليل هذا رسول الله مستواجي تموين برسول دا هذا لكل العالمين الرسول مم هو البدر والرسل الكرام نجومهم تطيع إذا لم يطلع البدر في الليل فلما أراد الله تفضيل حبه على كل مخلوق من الحب والقل محمد سيد الرسل خاتم الأنبياء مستوى الله تمي صفوة الأصفياء مفزع الناس هند يوم ازدهامي وشفيع العزاة يوم الجزاء اشهدوا لي بأنني سيد القلق محبا لكم ورب السماء فاقبلوا لي محبتي يا سمالي وملازي في سدة ورخاء كل تدمجنا من الأذى ومدى كل منتسمى jërëjëf jërëjëf Boubacar dafa mel na yaa ngi yëg de. waaw dama ko yëg. Euh, fu sori ci man lu ñuy wax Seydina Muhammad rek dama koy yëg. dama koy yëg nu ñu koy taggee dama koy yëg nu ñu koy woowee dama koy yëg nu ñu koy euh, euh, yëkkatee dama koy yëg. ak la puissance de leur voix. waaw maanaam yëkkati bi doole gi mu am man ni muy vibré moom. Mm. c'est-à-dire yéen moom yéen a ngi a ah, ngi def yéen a ngi def ay mbir de. waaw Ceneba Ceneba moo mel noonu moo toll noonu. Euh, Cheikh Cheikh Amadou mu ngi may woo sax sa Ceneba ndeysaan mu ngi rafetlu bu baax ndeysaan ci li nga xamante ne moo xam waa Ceneba instant ñu ne bi iftaar commencé bu léegi nekkul tey waaye ñoom iftaar commencé ba léegi ñu ngi koy suivre. parce que programme bi maanaam neex na leen. mais Cheikh bi affaire am na solo de. xam nga waaw tabarakallah mm-hmm. ñun Mame Omar Ndak Seck. Mm-hmm. borom ba mhm. bi mu sancee Cenaba en 1882. Mhm. dëgg la ñett rek la ñu bàyyil. àlluwa àll ba allahu akbar. allahu akbar mooy liggéey jàng jaamu yàlla. tudd yàlla tàgg yonent bi génnuñu loolu. Cenaba baa xam nga ni tudd Cenaba ca nabi la. ca bi ca nabi sang ba ah. moo tax bu ñu tag bu ñu tuddee yàlla nga yëg ko. bu nu tàggee yonent bi nga yëg ko mam Amari Ndaak mi sànc ba leen rek moo nekkoon itam dafa bàyyi woon lépp bàyyi fépp gedd njaboot joxe bakkanam ngir karimatu laa ilaha illallah jihaad fi sabilillah ku ne dégg na la bataille de Samba Sadio mais loolu bu mu juba la du fi xaj kon suñu tarbiya mooy seetoon <laughs> ilaahi loolu moo tax ñu ubbee ko bu maam Amada bu ngeen tuddee yàlla pare nag tàgg leen Sayyiduna Muhammad waaye ci kër yëpp fi mu ne bu mu duggoon kër Serigne Touba nga ñu fa lañ bokk ñu du kër Alaaji Maalik parce que nag wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraxu loolu la ñu jàngal kon fa tabaarakalla loolu mooy waral wax dëgg yàlla bu fekkee cana ba cana ba pur nga boo tuddee yàlla wala nga tàgg yonente bi sallallahu alayhi ci sa xol nga ko yëg waaye ci ñi lay déglu seen xol lay dal. ah man de yëg man de yëg naa ko bu ma ko yëg ñëpp yëg nañ ko waaw yaay yaay sax nee na yëg na ko. soxna ah, Awa Jili waaw allah dama kontaan ndax euh, lim limne bo duggee Touba ñu xam fa lañ bok da ngeen euh, Alpha mu ngi leen di ziare bu baax porte parole wu Ramadiou nee na mu ngi leen di seetaan. Alpha Ba Alpha Ba allah ak waa Fass Bërigo ñu ngi leen di allah man eh, sama yaay leen ni setan sama tante femme mbub sama magu yaay la ñoom faa sek samay mag lañ macha allah kii ci khalifa bi sama mam la dañoo bok ak Serigne Touba ndax Serigne Touba ba mu demee Wuramaadu yu jël jigen ju bax ju ñaan soxna Pend bu ba mu Ibrahima Pend Buya ca Wuramaadu yu kon ki day mbok direct ak Serigne Touba te ba parce que ki tok ci direct la surtout Serigne Touba direct la. jigéen ju baax jëm fa jël muy soxna bu ya mooy waajuru soxna Faati Mbàkke soxna Faati Mbàkke moom mooy waajuru sëñ Moodu Mbàkke Gelongal soxna Ami Cheikh sëñ Abdou Karim kon kii toog sama maam direct la damaa xam kii toog ak fan ngeen jógee ak yéenay kan macha allah moo tax bi ma ñëwee damaa kontaan tey yal na yàlla barkeel li ngeen def. ci barke Sëñ Tuubaa jërëjëf macha allah mu nekk lu am solo daa ngeen ñëwaat ba ci kanamee parce que ñëpp ngi xaar. Ah. guddi gi moom du yomb da ngeen ñëwaat ma mais yëg naa affaire de. waaw ñëpp yëg nañ ko ñu daal di jox Lalla euh, Padros nuyoo woon nañu sànq Lalla mu nuyoo dalal tamit colonel Lalla bisimilah.